daara internat buñ tuddee daarul arxam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jàppale ñu ba nga xam ne jataay bi dana am solo waaye jataay bi tamit dana am njëriñ kon gannaaw sant yàlla subhaanahu wa taala ak julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam garam sama technicien yi ma àndal ñoom daba ak euh, mbokk mi di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfeex itam yàlla defal leen jàmm ci liggéey bi mais yàlla yokk leen Eh, gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyoo islaam nuyoo jullit ak moroom te mooy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, kàddu yi incha allah mi ngi jëm ci comme ñu ngi ci weeru koor te xam ngeen ne jullit amul lu dul eh, li nga xam ne mooy lislaamam waaye jullit amul lu dul li nga xam ne mooy yonentaam bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax comme yonent yàlla muhammad ñépp a ko bokk te itam ñépp a koy safoo foo ko tuddee jullit bu ne day bég moo tax ñu tànnoon rek jataay bi ñu am ak yéen ak lu mu gàtt gàtt ñu feeñal lenn ci comportement yi nga xam ne jullit war na ko comportoog yonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon bu ñu doon wax ni jullit kan la war a gën a bëgg ci kaw suuf dañuy wax ni yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa ndax bu dul yàlla yonent yàlla muhammad la yàlla toppal ci boppam wayjur doog a ñëw keneen doog a ñëw kenn kese la jullit war a jiital ci ay wayjuram mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dul muhammad moo xam sa sëriñ la moo xam lu mu mën a doon sa wayjur moom nga war a gën a bëgg ci kooku waaye yonent yàlla muhammad bu xasee teew sa kanam rek war ngaa fàtte sa bopp fàtte say wayjur fàtte sa réew fàtte lépp ndax kii mooy ki nga xam ne moom moo ñëw ngir sauvé la moo ñëw ngir sauvé aduna mooy ki nga xam ne ba mu ñëwee fekk aduna bu lëndëm fekk li nga xam ne moom mooy tooñ xatal nit jaamu li nga xam ne mooy dul yàlla nit ñi di reyante seen biir yenente boobu moo ñëw mu sauvé aduna yenente boobu la yàlla yonni ci mu jub jamono mu sauvé waa aduna loola takon jullit dafa am yitte yu mu war a jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu bokk ci yitte yooyu yi nga xam ne moom lañ bëgg tudd incha allah eh, xëy na mën nañ ci tudd lu mat eh, fukk rek te dañ koy tànk ndax jataay bi xëy na du du yàgg lool moo tax bu njëkk ba ci yitte yooyu mooy teggin wala comportement noo ko mën a tuddee rek baax na teggin yu jullit bi war a tegginook seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ولا comportement يجول الورا أما يونين تامبا محمد صلى الله عليه وسلم بيجي جيت موي بغكو بغ بو خامين مو راو لوغا بغ كينين كوم نيما كو جيتال سانغ يالا سبحانه وتعالى داف نيو بغ لو يونين تالا محمد صلى الله عليه وسلم كوم نيما نيو بغ لو بوبام دا فام بن صحابي بو بو ماك بو تود عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بن بس دا فا توك توك يونين تبي صلى الله عليه وسلم ndax xam nga saxaaba yi dañoo bëggoon yonent yàlla muhammad salaa sallam ba mu kawe ci ñoom omar moomu bi mu toogee yonent yàlla muhammad salaa sallam yonent bi di waxtaan mu jël loxoom bu tedd ba teg ko ci kaw mbaggi omar omar yëg na ne loxo bi gën a tedd ci kaw suuf moo tege ci yaramam defe naa ne mbokk yi loolu ku nga lu rëy ku toll ni yonent yàlla muhammad salaa sallam mu toog ak yow di waxtaan mu jël loxoom teg ko ci sa kaw yaram Omar limu don sentir limu don yek ci xol bi moy ni su deewee ni rek dem aljana ndax gam na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nako Omar nak mu xol ba xamul lu mu ko mën wax lu mu ko mën feye lola mu ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi wallahi ya rasulullah ñaa yaa ma gënal ñépp ba mu dess sam bop manam sama bop kessé dal la xam ni sam bop ndax Omar dafa nekkon ku am fulla yonent bi salaa sallam noppi ba mu yàgg mu ne ko yaa Omar walladi nafsi bi yadihi maa ngi war si yàlla ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min nafsi waat naa si yàlla ne kenn si yéen du gëm yàlla ndere man muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama kaa ganal boppam Omar daa di jël ngànneel boobu mu dencaloon boppam mu sànni ko ci àll ba jël mbaggeelu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mu placé ko ci xol bi mu ne ko wallahi ya rasulallah léegi léegi nii yaa ma gënal sama bopp yenent bi ne ko sa imaan sa ngam yàlla mi ngi door a mat kon bu jëkk bi mooy loolu mooy ne jullit pour ngam yàlla mat pour ñu reconnaître ne yow jullit nga faw suñu làmbe sa xol war na fekk ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fees sa xol moo ko yàlla ku dul yàlla ku dul muhammad kooku doo ko jiital sa xol ñaareel ba ci comportement bu jullit ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nga nangul ko nangu boo xamee ne amul condition mooy ataatul atul maanaam da danga koy topp topp boo xamante ni doo ko topp ci lii bañ ko topp ci leneen ni nga ko bëggee sa xol topp bi noonu lay toll maanaam yonent yàlla muhammad bu dig ndigalam ñëwee kon war a tooxool ndigali keneen ndigali muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nga war a jiital sa ndigalu wayjur moom nga war a jiital sa ndigalu keneen ku mu mën a doon moo tax yàlla subhaanahu wa taala di ñu wax ni yéen su fekkee bëgg bi ngeen bëgg yàlla dëgg la si yéen yéen jullit ñi bu fekkee gëm bi ngeen gëm yàlla dëgg la si yéen toppaleen muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ngeen ko toppee rek man yàlla ma bëgg leen te du ci yem dama leen di jéggal seeni bàkkaar kon ku bëgg yàlla bëgg ko ku bëgg yàlla baal ko ay bàkkaaram na bëgg sayduna muhammad salaa sallam mais na topp sayduna muhammad yàlla mi ngi wax loolu ci alquran ci saar bu tudd surat al imran borom bi di wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim ñetteel ba mbokk yi ci comportement wu julit ak muhammad sallallahu alaihi wasallam, moy nga dimbali dinem ci sa bop ak sa njabot ak saw askan dimbali dine muhammad ci bop sa bop moy lan moy nga fexe ba taxawé santane islam julit bu bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondang kon dang ko wara gis muy julli dang ko war gis muy wor dang ko wara gis muy moytu yenn loolu mooy firndeel ni bëgg na muhammad loolu mooy firndeel ni mu ngi dimbali diine muhammad sallallahu alayhi wa nga dimbali diiney muhammad ci sa njaboot kon bu la yàlla mayee njaboot kon waroo seetaan ba sa njaboot yooyu ñu jàdde yoonu muhammad sallallahu alayhi wa sallam war nga jëkkanteeg àdduna ci sa njaboot war a jëkkanteeg eh, ñi nga xam ne ñooy yàq xele yi ci sa njaboot nga duggal leen ci diine jàngaloo leen alquran waaye yar leen ci sunna yar leen ci bëgg muhammad salaa sallam yar leen ci topp muhammad loolu mooy dimbali diine muhammad sallallahu la wa ñeenteel ba mooy nga bëgg ñoñ ñoñ ñoñ seydina muhammad salaa sallam ak i saxaabam cest à maanaam ñi àndoon ak moom waaye ñi nga xam ne ñooy njabootam nga bëgg leen nga bëgg saxaabatul kiraam nga jéem a xam saxaaba yi itam ndax jamono ji toll na jamono joo xam ne ñi àndoon ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam suñuy doom yi néew na leen mën a lim wala ñi mën a lim ñenn ci ñoom ndax tey jii li ñuy wan suñuy doom di ko wan suñuy gone yi dafa wuuteeg saxaabatu rasul sallallahu alayhi wasallam te ñooñu dañoo waroon a fexe ba suñuy doom yi xam leen suñuy doom yi xam Aboubacar mooy kan suñuy doom yi xam ne ki jëkk gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy Aboubacar suñuy doom yi xam ne ki jëkk dimbali islaam ci alalam mooy Aboubacar waaye suñuy doom yi xam ne saxaaba yooyu dañu ànd ak saxaaba yu jigéen saxaaba yu jigéen yooyu tamit bokk na ci ku mel ni sunu yaay Khadija nga xam ni yaay Khadija itam bi Aboubacar di jàppale Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci alalam Khadija tamit mi nga féete ca beneen wàll ba di jàppale Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci alalam pour diine islaam mën a yëkkati ko kon tay ji diine su tolloo fi ba ñun ñëpp nekk ay jullit ñuy sant yàlla ci loolu war nañu ko gërëmee yàlla gërëmee ko muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam mais gërëmee ko sahaba yooyu àndoon ak moom ñu jéem leen a xam jéem a xam leen na seen histoire xam ne sunu yaay Khadija taxaw na taxawaay bu rëy ci lislaam Aboubacar taxaw na taxawaay bu rëy waaye ku mel ni Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu taxaw na taxawaay bu rëy ci islaam ndax ba mu duggee ci lislaam la jullit ñi tàmbali di am jàmm ndax xam ngeen ni départu woote bi ca màkk jullit ñi dañoo sonnoon ñuy toroxal jullit ñi di dóor ku mel ni bilaal rey sunu yaay sumayya ab jigéen la dañ ko rey toroxal ku mel ni amaar waaye bi Omar duggee ci islaam bi comme dafa amoon fit am doole sauvé na jullit ñi ci màkk ñu xam ne Ousmane ibnu Affan moom tamit saxaaba la boo xamee ne moom milliardaire la woon comme ni Aboubacar doon jàppale islaam ci alalam ak sunu yaay Khadija Ousmane tamit noonu la doon jàppale Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi toll woon na diggante comme jamono ji ñu toll ni nga xam ne problème dafa am maral amoon na jamono jooju Madina nit ñi sonn lool comportement jullit beeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mu bëgg saxaaba yi mais jéem a jàng seeni histoire bëggal ko njobootam waaye jéem a tàggat njobootam ci ñoom loolu mooy dimbali diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nusratu diinil islaam waaye bokk na ci comportement yu jullit war a comportement comporté ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jox ko respect màggal ko bés bu ñu tuddee muhammad nga ni sallallahu alayhi wa ndax loolu yàlla subhanahu wa taala moo jëkk màggal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla subhanahu wa moo jëkk jox muhammad dayoo borom bi nee na inna allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yàlla مو wax موم moom ci boppam mi ngi julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wande malaaka yi ñi ngi julli ci mooy yàlla dalay bëgg dalay day wàcce yermandi ci yow dalay jéggal julib yàlla ci muhammad moy da jéggal yàlla nee ko am jéggal na la li yaghfir allah lak ma taqaddama min zanbika ma ta'akhkhar say bakkar yeb jéggal na la ko amo sa bakkar yow muhammad alayhi salatu wassalam julib yàlla ci nit ki moy loolu julib malaaka ci nit moy lan dañ koy ñaanal kon chaque jour malaaka yi ñi ngi ñaanal muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye chaque jour malaaka yi ñi ngi ñaanal ñi gëm Muhammad jullit ñi gëm Muhammad malaaka yi ñi ngi leen di ñaanal comme yàlla mi ngi wàcc xeewalam ci xeewalam ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaaka ñi ngi ñaanal Muhammad yàlla mu ne yéen jullit ñi yéen waa lislaam kon nag dee leen ñaanal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tudd julli boo déggee julli ci Muhammad mooy ñaanal ko mooy nga wax allahumma salli ala muhammadin wa sallim ma mbokk yi boy xol yàlla ni mu màggale sayyidina Muhammad motax dafa lankale turam yàlla dafa lankale turu Muhammad ak turam ci lu bari ci l'islam julit lu muy def ci islam rek bu bolewul Muhammad bu bolewul Muhammad du ba ba nit ki suy duggu ci l'islam soni ashhadu an la ilaha illallah da nga ciy da nga wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye noddkat bi suy nodd pour julli su waxee ashhadu an laa ilaha illallah beneen tur placé wul foofu bu dul turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam su ne ashhadu anna aliyan rasulullah baaxul ashhadu anna abubakar rasulullah baaxul ban tur moo moo valable foofu ban tur moo baax mooy ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu yàlla nga koy wax ci alam nashrah laka sadrak borom bi nee wa rafa'na laka dikrak man yàlla maa yëkkati sa tur kon yàlla moo yëkkati turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba fàww nag dootul suufee kon yonent yàlla muhammad turam mi ngi jib fu ne ci àdduna waa Sénégal bu ñuy nodd daañu wax ashhadu anna muhammadan rasulullah France bu ñuy nodd noonu Amérique Arabie Saoudite kon loolu yàlla moo jox yonent yàlla muhammad teraanga boobu yàlla jox yonent yàlla muhammad beneen teraanga pour ñu mën ko màggal ndax bu ñu xamee tiraa ngi yàlla jox muhammad day tax ñu gën koo fonk gën koo màggal sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox yonent yàlla muhammad tiraanga bu toll ni yàlla nee na yow jaam bi ak kum mën a doon sa biir bàmmeel yonent yàlla muhammad lañ lay laaj foofu maanaam jaam su génne àdduna ñu yor ko ci bàmmeel bi kenn la yàlla wax ne moom la ñuy laaj jaam bi foofu gannaaw laaj la kan mooy sa boroom laaj na lan mooy sa diine bokk na ca laaj ya kan mooy sa yonent am na beneen riwaaya beneen xadis buy wax ne jaam bi suñu ko yooree ci bàmmeelam malaaka yi dañuy teew bu nit ñi robee ba dellu seen kër yi malaaka yi dañuy teew yaatal sa bàmmeel toog loola ñu am ñu andi jëmmi sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ñu teewal ko sa kanam su ko defee ñu laaj la ndax xam nga kii sallallahu alayhi wasallam, yow loo daa wax ci kii mu ne ki gëmoon Muhammad te bëggoon Seydina Muhammad ci xolam day mbir mi si automatique maanaam da ngay da ngay xàmme Seydina Muhammad yàlla na yàlla defal ñu da ngay xàmme Seydina Muhammad da ngay ne malaaka yi xàmmee naa ko kii mooy Muhammad bi ma nekk si àdduna kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh bi ma nekk si àdduna maa ngi doon seede ne mooy ndawi yàlla mooy ki yàlla yónni ci ñun mais mooy jaami yàlla ba mooy Muhammad صلى الله عليه وسلم ñu ne la kon day gañe nga ba ilaa yawmil qiyaama toogal ci sa bàmmeel ngay am xeewal di am teraanga mbokk yi pour ñu mëna màggal seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam faaw ñu xamné itam yonent yàlla muhammad moy ramu mu jaami yawmal yàlla jox na ko teraanga bu toll ni yawmal bu taxawaay bi métti muy premier jour ci yawmal qiyaama borom bi nee na yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana yàlla ne fas fasbir sabran jamila innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba yàlla ne na jour boobu day tolloog eh, juróom fukki junni at juróom fukki junni at yoo xam ne ci atu allaaxira la la taxawaay boobu lay tolloo yàlla wàcce jant bi mu tiim ñu nit ñi di ñaq sa sa tolluwaay ci bàkkaar say say bàkkaar ni mu toll say ñaq noonu lay toll ci gàttal nit ñi dañoom problème ñu daw dem ci yonente yàlla aadama alayhi salaatu pour aadama dem ñaan yàlla yàlla baal jaam yi àtte leen yóbbu ñi ñi mu yóbbu aljana yóbbu ñi mu yóbbu sawara maam aadama joxe ngànt ndax fàttaliku ne yàlla waxoon na ko bu laal garab ga mu laal ko ñu dem ci yonente yàlla noohin mu joxe ngànt ci gàttal yonente yàlla Muusa mu joxe ngànt yonente yàlla Iisaa mu joxe ngànt ba mu des yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci moom mu ne bés bii laa doon xaar yonente bu ne amna sa ñaan bo xamé ne du rate yonente yu bari ñaanon nañu seeni ñaan ci aduna man sama ñaan bi bés bi la ko don xaare sallallahu alayhi wa sallam mu dem sujjo ci kanamu yàlla yàlla ne ko yëkkatil sa bop ñaanal li ngay ñaan ma may la ko mu daal ñaan yàlla atti jaami loolu mooy ashafaatul uzma moy ramu ramu gu magba ramu gogu kenn la ko yàlla jox moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne so deggete nod yow julit bi del wax comme ki nodd li muy wax su nodde ba nopi ba pare waxal ñaanal ma man muhammad yàlla jox ma maqama bi ndax kuko def rek dana la ram qiyam moy allahumma rabb hadhihi da'wati tam was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu al-maqama al-mahmuda alladhi waat ñaan bobu yonent bi salaa sallam nee na képp ku koy ñaan après nodd man mala garantil ne dana la ramm yowm qiyam kon yonente yàlla muhammad moo ñu ràmm yowmal qiyaam mais pour ñu gën a màggal muhammad sallallahu alayhi wa ñu dolli ci li ko yàlla jox mooy yàlla jox na ko sallallahu alayhi wa moom mooy joxe laissez-passer yi yowmal qiyaam pour nga mën a dugg àjjana maanaam tey ji bu doon comme àdduna misaal bi mooy dañuy dañoo war a dugg pale palais de la république moom mooy aljana pale bi nag pour nga dugg fa faawo ñu jox la benn barse barse boobu nag ci kan nga ko mën a jële mooy ci muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam mooy lan yowmal qiyaam bu jaami ñëwee julit ñi ñëw laataa ñu dugg àjjana ku ci nekk di nga teew yonente la muhammad seede la maanaam ñu mu ne kii dee ci sama xeet la bokkoon nga door a mën a jàll moo tax yàlla mu ne fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haulaai shahida nee na yowmal qiyaam ñun ñooy seede seede yeneen xeet yi waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy seede kon yow jullit bi mënoo dugg àjjana te muhammad taxawul ci kanamu yàlla mu seede ni kii bokkoon na ci sama xeet li lay may loolu nag mooy nga jéem a adopté wu léegi nga jéem a bokk soo bokkul léegi yowmal qiyaam soo bëggee bokk doo mën a bokk kon mbir mi fii ngay wuute sa laissez-passer soo ñëwee yowmal qiyaam yonent yàlla muhammad seede la nga mën a jàll yàlla jox na ko mooy jëkk dugg àjjana yowmal qiyaam ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala sharafana allahu bi duxulil janna maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla boole ñook moom ñu duggandoog moom àjjana ñu bokk ak moom jataay yowmal qiyaam yàlla nañu ko gis yowmal qiyaam yàlla nañu am jataay ak muhammad yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na aati baabal jannati yowmal qiyaama fa astafti nee na damay ñëw ci buntu àjjana ma ma ma sàkkoo ubbi ma ne malaaka bi ridwaan mooy gardien bi nekk euh, aljana ma ne ko ubbil ma nee na malaaka mi ne ma man ant yoway kan ma ne ko ana ana muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maay muhammad mu ne malaaka mi ne ma bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak mu ne yàlla waxoon na ne bu ma ubbi àjjana te ñëwoo yow muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ma ubbi àjjana te ñëwoo kon mbokk yi yonent yàlla muhammad mooy jëkk dugg àjjana kon nañ ko bëgg nañ ko fonk nañ ko topp nañu dimbali diineem sallallahu alayhi wa sallam nañu nañu nañu dimbali diineem ci suñu bopp nañ ko dimbali suñu njaboot waaye nañu jaamu yàlla ci mu ni muhammad doon jaamoo yàlla nañ ko toppandoo ci sunnaam la mu bañoon nañ ko bañ la mu bëggoon sallallahu alayhi sallam nañ nañ ko bëgg nañu bëgg alquran bi nga xam ne moom la muhammad andi bokk na ci comportement yu jullit ak muhammad day bëgg alquran ndax alquran la yàlla jox muhammad mu def ko mu nekk ruuxub jullit li nga xamne moy dundal julit moo damay faral di wax ne julit sans alquran julit bo xamee ne suratul fatiha sa nekul ci dënn bi loolu danger la ndax yàlla subhanahu wa taala nee ko alquran mako wacce ci yow yow muhammad alayka salatu wasalaam ma def ko mu nek luy dundal julit wa kadhalika aw xaynaa ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitab wala al iman walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko man maa la jox alquran ma def ko mu nekk ruuxu comme yaram ni mu amee ruuxu muy dund noonu al alquran mel ci jullit maanaam alquran sans eh, jullit sans alquran mu ngi tollook yaram bu amul ruuxu yaram bu amul ruuxu nag fu mu jëm mooy yaram boobu dee na te fu mu jëm mooy maanaam dañ koy sànni kon jullit sans alquran mooy néew buy dox ci kaw suuf kon bu fekkee li ma dese xam naa ne boo moytul bareetul ma desee ñetti minute mbaa ñeenti minute ngeen may ma rek ma jàllale message ci sama mbokk séeréer saafeen incha allah bu fekkee technicien bi may na ma lool rek su ko defee ma jàllale benn message ci sama mbokk saafeen yi kon sama mbokk saafeen yi su ma doon expliquer ci saafeen li ma doon waxtaan ak yéen mooy ne dama leen di jëkkanuy ci saafeen kon mi woodu ne boobi kañi du tig na kañis way bobi kimko o riboni ko wi yalla ko nangu bowa mi bahdo bo mo sifina ngane yawmal qiyama asi ajjana bahunna muhammad sallallahu alaihi wasallam bahunna wosudin ko yalla ko tumi bo inem wahtani mo ngan war bo safi isur rek xamna o mitande sa in bo ngan war jen way bo woni rek bo fi bo bo fi woti nadu bo hunna muhammad sallallahu alaihi wasallam yif inane bo yening ne fu fu fu wadi te boobi tamit boo waaɗiɗe yalla ko ɗum kencinmo bo waɗ mouhammad sallallah sallam nda waɗ mouhammad o ɓaga incinate incinateɓo hene fu fo kosi ko kon kono boyi kosko joom joom waɗ mouhammad léegi boo waxtaanoo he sincine jullit jom jom raak ay comportement na muhammad sallallahu alaihi wasallam maanaam fi fi jom man na de fu jom ni de hen to ci jan fu jom ni de hen to wala wala boy fi nga ne ay ay yaayinda ndax muhammad ko ay ay meebil de ina ɗal hono kohdal muhammad ay ay jomna gane ganali ɓocin keeƴi jen nda koh wone wosirin ko sallah sallam ñamin meɓ tikin de ngam zohani tikingo po tahi po ɓoyi fo mininik jullit tef woye tikin koɗa fo am suhu tiki muhammad nga sallllahu alayhi wa watta ɓo fu watta asga dineni mbo islam wiɗa fa hayay fo wone ashhadu an la ilaha illallah wawi fo bat nga ashhadu anna muhammadan rasulullah inen fo tumna ref min nik jullit inen wawi tewo hene mouhammad kon ko ay ɓasdo ɗe gan dineni kon bo wadat ɗe way bo ñakiɗɗe ñakɗaf inane warat ɗe condition inan mouhammad wooda fo jomni deg batga tum rek tum a woni tumaɗa tuma a woni faɗaɗa faɗa kammek sosa par ce que in cawi a koroɗi can kiñinkinde sallllahu alih w sallam mais a koro ca gan koh a koh woni wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha a weɗin kiñinkinde ina wo rek ɗa akowa yiɗi kohɗe wa kohowosa boni lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir ñakɗat ɗe ɓo nanine fo waɗi as ajjana kimna ñakɗa wosuɗin ko sala sallam ɓonne fo waɗine ko a balla kim yawmal qiyama ɓekɗa ajjana ɗa ñakɗa wosuɗin ko kono bo ñakɗat ɗe way mo ambo had diine nin nde ambo diine nin nde wani ko hena waɗne mbo dimbali fan mbo ngan diine ni ɓo tufki ɓo ni mouhammad sa sallam boo jullee boo ore boo jàngi alxuraan waaye bo ɓey bo cifinangaane baɗi njoɓotin bo komakci bo koɗɓa ngan ineem bo ba ngan alxuraan bo koɗɓa ngan diineeni bo koɗɓa ngan julli po kimna bo rak lay ngan fiki ko ko meekis ɓoɗo bo min wowori kohne ɓoode bo tegen ma ngan diineeni mouhammad sallallahu alih wa sallam waawi bo jeemat waat ɓo ciwdenade ɓo ciwdena mouhammad ambo heɗa ɗen diine ni ɓo jom ɓa ina mais ɓo ini ba komo cimmowo laam komo cimmowo woti woti bayna di sahabaci bayni wallahi mais fo mekɗa sahabaji ɗe est da que mamiɗo bo ka hay ngaba bo in larɓa aboubacar bo in ba omar bo in hi ba usman bo in hi ba Ali bo in ba ne bi ba nga ɓi ambo he Alaihi Wasallam sallam po ni bo min da ras wote kon bo da bo chorki dat ba bo chorki dat ko bo muhammad sallallahu alaihi wasallam way bo chorki sahabaci ina ngani bi ɓaɗi ambo heɗe nga bo manna khadija abiti miya ba bo ci ambo muhammad sallallahu alaihi wasallam kon kom ci mu jom ina bo cem e eh, dalona inem da bo ina ini ko en muhammad bo ina hada waye ta bo batte wa bo batte nyaaki ko edi muhammad ina laayi ko edi muhammad bo yakanda ngan do ruyinda fo accuda fo mexuse bo yono muhammad ay fo se ndem dong, fu mexuse ndi yaba sirndinda fo fu bahende ya babdu لا في السنغال ولا في موريتانيا ولا في مالي موك فا مكسو محمد صلى الله عليه وسلم في مكسو كو وجود من ربك من من نبيك ما دينك يا في في مت جامو با اي ندي كو واي يابا يابا نيكي ووزو دينا واي واي واي نيكي دين ني في مت جامو كو دا لو خنا انم دا بو فايكي بو فدوزين روين لا ملائكه تي باي باي ماندو هادي محمد صلى الله عليه وسلم كوم فوتو baɗa kam fiki fu ɓa wodani daf inisi ɓoyi daf kosen de legi ɓoyi kose muhammad ñak ɗeɗa de yalla ko on ɓo inem ko hani tumde sabat ahan ke hiraki fit ahan de inisi a inisi de awoni midey ɓoyi inisi de yeyi muhammad sallallah alih sallam jamano ni ni kongan adina meɗi wone meɗi seede ne ayi wosudin ko te itam ayi jamin ko kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ba wodani kondi fu gagnei ɓoofan ruyinda ɗa in cirakeɗe ge inane bi pombanna yowmal xiyama ha tufke koɓe ɗa ajjana ɓo tamit ɓo inane ɓo kurugu ruyicimbo cemda tufka woysan yowmal xiyam tufke ɓon tufke wem aɓo inomin bo rammunga ay mouhammad salalah sallam ko howone premier jour yowmal xiyam wahan nikke kiis junni ndanka heya tus ngam sortul ma arij ko howone fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana kiis junni ndanka hiatus ndax maañi ɗi na finino hanki doxe mboci mboci ope findi bakkar cinɗa hen opcina henan ɗa wosirin ko wone sa ɓo hay ope po fo asgam opcinɗa cani comme la laa manna masɓi wo layki lay po wo murraɗa te masɓi jen wo bakkar jamanonem nak ɓo ko mam adama alayhisalatu wassalam comme ay mami mo jenna woden ne karan ko fu kimde ndax ko on mo bo cianke sawar ka sawar banke ajana ka ajana mam adama bo ne midi kanji to fu fikku ko hotin kimede karat ibrahima karat nga no kon nga no no edo bo kon nga ibrahima ibrahima edo bo kon nga isa musa na isa be edo nganta potas muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga muhammad da muhammad woni mm, mm, seke bezi woti lam Wozi wozi bo ci ko hoos nga ke ijen baraki nyan ci banyan nyanan te ca ca ca tedu son tedu ko ko wi kuca banyanen nyan ci mbajen nga adina nyani ngun se ke wote aka asujot fiki ko ko wode ne ko la havinna nyana ini fang nyani on nawa yon wozi ko sallallahu alaihi wasallam woni mbadirada nak a nyan ko atti jamji bi hanke ka kat ajjana bi hanke sawar kat sawara wada wangne ɗo kera noddata woyat findi boyi noddan woyan akat poore noddata ɗo o rabba hadihi dawati tam wassalati qaima ati mouhammadan alwasilata walfadila poñanare wo sidin ko hone ɓo ko no wisɗa fo hay bese mbaɗiɗa ñam hana rammo e kono ko ayiyem mbokkacin saafiji wo sidin ko ayiyem ɓo kosatɗe ɓo hunnade ɓo waɗɗe ɓo ñaakiɗe ɓo waɗ sahabaji hundinande ɓo waɗ alqur'an bo janga bo jangida komo cimbo way bo waɗ dina nin de bo jaamu ko findi wosini ko meɗ jaamu o ko bo moytuk ɗalohnade sallllahu alih w sallam ndengsi dine ni inemde bo tumaɗa inchallah bo hay rakinade jetta yawmal qiyam par ce que eh, a woynga ne ay koce as ajjana awoni a bunta ajjana awoni yaɓa yiyam wosidin ko howoni ñami mouhammad awone malakani woɗene koho wendoɗe nde quatre rangsar buntani tef haydi arangisa wosuɗin koho as woɓi kim ko yalla ko e, am soɓo nade ɓo as ajjanana nde poɓo kangan jannatul firdaus ndah waɗi jolgan ajjanaci te mouhammad salah sallam no sahabaci ne ɓoci baci ɓake ndem ko woni oman yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin wasiddiqin washuhadai wassalihin وحسن أولئك رفيقا يلا yalla بو إنم كون kon mbo bi tufugndi naɗu bo kimko كو on بو بو ماسا orlaya na هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته